salaamaaleykum wa rahmatullahi wa euh, ñun la waa xuddaamul euh, Qur'an di euh, ñi génnee ci daara yi Serigne Cheikh Mbacke Gueye waaw ñu amoon ay laaj yu ñu laaj rek ci daara ji doxin wi ak diggante bu gàtt ci diir bu gàtt boo xam ne dañ ko ci mën a tënk ne xam naa ne dana jël waxtu bu yaatu mooy dafa laaj jaar jaari daara ji ak. maanaam euh, histoire daara ji daal ci gàttal. ñu koy wax xam naa ñu ngi fi ànd ak euh, sunu mbokkum daara Mbaye Gueye ak euh, sunu mbokkum daara di Mourtala fa xanaa di ci tënk tuuti rek loo xam ne xam naa sëñ Mbaye Gueye dina ko dina ko yeggali ndax daara ji sëñ Cheikh bi nga ko sanc ci 1992 bi mu ko sancee am na génération bu njëkk boo xam ne ñëw nañ fi mu jàngal leen ba ñu mokkal jàngal leen xam-xam binduloo leen kaamil ñu jaar fa ñu euh, jëlee fa yar bu baax boo xam ne euh, fu ñu dem rek maanaam nit ñi leen koy tuddal ak di leen ko di ko safo génération euh, de génération en génération ñoo jaar ci daara ji ndax période boobu am na génération bu mag boo xam ne jaar na fi muy lim bu bari boo xam ne xam naa takkuñu ko pour wax ñen ñoo fa génnee ca noonu bañ fa jógee it am na beneen génération bu fa jaar di deuxième génération boo xam laa bokk ba ñu ca jógee it beneen génération judd na ca di troisième génération boo xam ne xam naa Mourtala Fall mii mën na ko wax ba ñu ca jógee di tey jii nag nga xam ne moom moo waral ndaje mi di génération bu mujj bi nga xam ne euh, yàlla dogal na di depuis 2009 ba 2018 81 personnes mokkal nañ ci alxuraan nga xam ne li ñuy def moom mooy takk bu mujj bi rek lañ def moom la ñuy publier waaye bu ñu toppee njëlbeenu daara ji ak léegi dinañ gis ne jaar-jaar yu bëree bëri ci wàllum njàng waaye jaar-jaar yu bëree bëri ci xam jaar yu bëri ci wàllu valeur ak yi jikko jaar na fi te wax dëgg yàlla lu ñu xam la lu lu yaatu la euh, ba tax na loolooy génération yi ci tënk yoo xam ne jaar nañ fi mu doon ab lim bu baree bari boo xam ne limu na lool waaw xam na bu fekkee ne jotaay bi dafa xat ñàkk a wàcceele ne kon daañu indi kenn ku nekk turam waaye kenn ku ne daañu indi jaar-jaar ak euh, ci ban génération la bokk waaye ci tënk li ñu doon wane rek moom mooy génération yu baree baree bari jaar na fa ndax affiche yi ngeen gis tey jii ci euh, conférence quatrième génération mooy xale yi nga xam ne ñu mujj ñoo fi ne ñu doon ay xale yoo xam ne seen alxuraan set na sëriñ bi jàngal na leen xam-xam waaye it yar na ñoom yar bu dëgër euh, bu ko defee ñu li ci des ñu jox ko sëñ Mame Mbaye aouzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñoo leen di nuyu di leen ba di leen bu baax xam na sama kàddu sax du gudd ni ko mbokk mi waxee rek yow mi bëgg a xam daara Cheikh Mouhamadul Amine Gueye Firdawsi naka lay deme ak jëwriñ ji fi nekk naka lay doxalee daara ji yow mi bëgg xam daara ji daara ji lan moo ko tax li ci jiitu mooy daara la joo xam ne day tàggat ab jullit wala day forme ab jullit njëkkee ci moom ci alquranul karim waaye yar ko yarub lislaam tamit tarbiye ko tarbiye tarbiye boo xam ne si ni bu mucc ayib lay doon ala yetti xaal du ma guddal ni ko mbokki waxee daara ji mi ngi tàmbali ci 92 ba sunu jamono yi tay nga xam ne mi ngi war a toll ci 27 ans xam naa bokk naa ci ñi nga xam ne jiitu nan ci daara ji wala bo mu fi jiitu tamit ñi ma fi jiitu bëriwul kon daara ji ni muy doxee mooy noonu ma ko waxee léegi ñi fi jaar nag ci ay xaafiw bari na lool mën naa wax ne quatre vint quinze ba léegi at mu nekk am mbooloo mokkal fi alxuraan waaye at mu nekk tamit ay nit génnee fi yoo xam ne daneen fàgguwaale xam-xam bu mucc ayib yóbbaale ko daara ji nag ba nii nii ni muy doxee mooy comme ni ma ko waxee léegi ci li muy yëngu mooy jàngal nit ki alxuraan mu jiitu ci moom bu paree jàngal ko mboole funu ni xam-xam yi nga xam ne des koy soxla ci ak jullit bu ca noppee danañ boole ak loolu yar ko yar boo xam ne si ni ku mu nekkal dana mën a dund ak moom dund boo xam ne si ni bu kenn amul sikk lay doon mbooloo mi nga xam ne moom nga gis nii nag ñu takk badge yi ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ciy jàpp ñëpp ay mbokk lañ ñëpp Cheikh Mouhamadul Amine Gueye moo leen jaboote waaye ñi ngi ci biir kër Cheikh Mouhamadul Amine Gueye tamit am na ñoo xam ne ay benn benn li leen boole mooy alquran kii waxtaan leegi wax na ko wala ki kii ba léegi wax na ko mbokk gi gën a dëgër mooy mbokkoog lislaam te loolu yàlla def na ko suñu biir waaye ñi fi jaar tamit booloo nañ mànkoo nañ nekk benn ngir yëkkati daara ji mu dem ba ca kanam a kanam a kanam incha allahu taala wala mu dem ba ilal abad fekkee mënees na ko waxee noonu incha allahu taala lool lañ ci mbébét waaye yow mi nga xam ne yaa ngi laaj daara Cheikh Mouhamadou Amine Gueye nga bëgg a xam naka lay doxee am na ci ay yoo xam ne du ñàkk Murtada Fall dana la ko jox voilà da nga ko jokkoo ñeneen ñoo xam ne mën nañ la ci jox ay leeral boo xoolee li ci bunt bi tamit mbir la moo xam ne day leeral daara ji fi mu tàmbalee ak ni muy doxee ak programme am ni muy doxee lépp loo xam ne soxla nga ko ci rek incha allahu taala da nga ko xam damay bañ a guddal ak ñàkkee waaj waaye daara ji daan mi ngi tàmbalee quatre-vingt-douze ba tey nga xam ne mi ngi war a toll ci vingt-sept ans vingt-sept ans bu ma juumul waaw booba léegi nag nit ñaa ngi fi génne di mokkal alquran waaye nit ñaa ngi fi génne di fagwala xam-xam bu bare bari mbokk na ci mbokk yi sama wet la chaque ci ne am nañu xam-xam waaye nag ci daara ji rek lañ ko faggoo loolu daal laa ciy tënkee di ñaanal suñu jëwriñ ji Serigne Samba Kege yàlla yàggal ko fi te wéral ko baax a li mu bëgg a liggéey ci alquran mu liggéey ko lu kawe jotam bi jaahi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare bu baax a baax di leen ñaanal jàmm Euh, di rafetlu bu baax a baax bis bi nga xam ne moom lañ nekk tey nii bisu tarib alquran di ci sargal ay mbokk yoo xam dañoo wat téereb yàlla bi alquran karim li ci ëpp solo rek sunu mag yi sunu mag yi daara yi leeral nañ lépp muy jubluwaay daara ji ak daara ji kañ la tàmbali ak ñaata nit ñoo fi mokkal alquran ci depuis 2009 ba léegi nga ne moom lañ sanc fii ji Touba Jannatul Firdaws nga xam laa bokkoon euh, ñu ngi leeral rek mooy daara ji bi ko tax a ju mooy former ab julit ndax borom daal loolu la yàgg di wax muy former ab julit moo tax ah ma samp daara ji. ñaareel bi mooy ñun ñi nga xam ñoom ñooy quatrième génération bi troisième génération bi nga xam ne ñoom ñu ñoo njuk sof ci ñoom ñi nga xam ne ñoo suñu mag yi biñ ñëwee ci daara ji ba nga xam ne si ñi bañ doon jamono yi nga xam ne ci biir daara ji. ci lañ tàmbali lii muy kuréel bi ci lañ ko tàmbali ndànk-ndànk ndax ku ne xam ne donga ab wërsëgam bëriwul noonu moo tax ñuy def ndànk-ndànk ba keroo yàlla dogal suñu wayjur yi jëlee ci daara yi gannaaw bi ñu suñu wayjur jëlee ci daara ji nag ba kenn ku ne yàlla dogal am ci loo jàpp di ci liggéeyee kenn ci suñ mbokk yi xam ne bokk nekkoon daara ci troisième génération bi moo woo ñun ñëpp ne kat ci daara ji lañ jógee jànge fi ba mokkal am luñ xam tuuti ci alquran ak xam-xam dañoo bëgg kat ñu dajalowaat fas yéene ànd takkatoowaat roy suñ mag yee fas yéene jàppale alquranu karim jaare ko ci daara Cheikh Mahamadul Amin Gaye Firdawsi ah ñu ne ko ah loolu rafetlu nañ ko ndax suñ mag yi fii lañ jaar fii lañ jaar ak ñun saa su nekk ñu ngi xëy dañuy dimbali ci lu mën a doon kon loolu dañ ci ànd loolu moo indi ba tey yii mbooloo mi mu njëkk maag ñu mujj maag ñëpp an doon benn ku nekk ñi ngi ñi ñenn ñaa ngi Tuuba ñenn ñaa ngi fenn ci réew mi fu ma doon rek ñu ngi xëy di jokkoo di te xalaat di waxtaan di diisoo di wax li gën a jëmale kanam daara ji ndax day daara yoo xam ne si wax dëgg yàlla njàng mi leer na nañ te wax dëgg yàlla daanaka ku fi ñëw njàng mi sedd na danañ la yar bo ci ndax day daal yoo xam ne daanaka ñeenti at da bari na ci lool sax nga mën fay ñoo a war téere bi yàlla bi te teewul ñu jàngal la xam-xam kon daal liñ ci mën li ci mën am daal mooy euh, li ci ëpp solo rek jàllal nañ ko fi muy wax jëmmi daara ji waaye alaa kulli xaal li ci mën am rek daara ji képp bu bëgg ci bëgg xam lu leer nañ ñi rek ci daara ji ak ci daaira bi quran li xirri ji mahadu Cheikh Mamadou Amine Ndiaye Firdawsi waaw kon daal li ci ëpp solo daal jàllal nañ ko mooy képp koo nga xam dara ci daara ji rek muy daara ji ni muy doxee wala daairatu xuddaamu foire bi nga xam ne dafa jóg ngir jàppale daara ji ak ci lu mu mën a doon jàppale daara ji nag bu ma ko waxee dara génnu ci lépp lu daara ji soxla moo xam weeru koor ñëw ñu war a wa waa daara ji ci lu ñu war a lépp ci daayiratu xuddaamul Quraan bi ñoo koy gàddu def ko moo xam dañoo soxla ay néeg ñu góorgóorlu ba def ko moo xam dañoo soxla lu mu mën a doon ñu góorgóorlu fexe ba taxawal loolu même mbaar mii ñu yaakaar lool daayiratu xuddaamul Quraan bi ñu génnee ci daara ji ñoo ko taxawal te loolu dafa tàmbali lenn ci seen mbébét yi rek mais am na yeneen yu niñ mbébét yoo xam ne si dañ koy def ndànk-ndànk rek incha allah ba ah, ba yàlla li ñu may suñ suñ kaw la kaw suñ jot waaye képp koo xam bëgg nga lu gën a leer ci daara da ngay jokkoo ci numéro yi ma lay jox 77 655 48 34 loolu mooy bi boobu mooy Tigo bi wala nga jokkoo ci 76 473 60 71 wala nga jokkoo 77 433 39 39 numéro yi daal boo ci jokkoo boo jaaree da nga am lu leer leer nañ ci daara ji ni muy doxee ak jubluwaay beeg lépp incha allah taala dinañ ko mën daal kon daal yu gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kon xam naa li ñuy wax ji yëpp nga xamante ne si wax ju jaar yoon la te set te jekk liñ koy collecté rek te di ko mujjee mooy euh, li ñu fi wax lépp noonu mooy doxinu daara ji euh, mooy li taxa a jug daara ji nga xam ne moom la sëñ Mambay mi indi ak at yi nga xamante ne si moom la daara ji am ak li nga xamante ne si moom mooy jaaruwaay bi sëñ Mourtala Gueye indi euh, Mourtala Fall kon bu ko defee rek ñu xam perfectionnement wu daara ji perfectionnement moom mooy daara ji dafa amoon njëlbeen am doxin doxin dem ba digg bi avancé kon avancement bi bi mu demee ba egsi tey ndax tey jii ñi ngi am tout tànk boo xam ne ñaari at la jàng mokkal alxuraan kon loolu moom mooy pédagogie bi nga xam ne moom la daara ji am tey la jiitu woon lañ doon jàngalee ku ne xam na ko la ca topp ku ne xam na ko waaye fi mu toll nii nga xamante ne si programme bi changé na te soppiku euh, ci euh, dayo boo xam ne xale bi soxlaatut muy duré benn temps bu yàgg bi ci daara ji pour jàng wante léegi méthode yi euh, yaatu na méthode itam léegi ubbeeku na ba nga xam ne xale bi soxlaatut ndax am ñetti at lañ jàng mokkal am na fi koo xam ne ñaari ci coobare boppam la indi boppam ci daara ji waaye ñëw bàyyi fi daaro yi bari ñëw ba ci daara yi suñu Cheikh Mbacke Gueye fi indi fi boppam ba bokk na ci ñu doon tari tey jii donc kon loolu mooy avancement daara ji fa mu jógee ba fi nga xamante ni moom la si fii tey mu doon ay liggéey yu yaatu yoo xam ne am na liggéey yu rafet yoo xam ne it am na fi yoo xam ne kenn ku nekk ci waa Firdawsi wala bokk fa la jógee fa la sanc lu juutu mi ñëw firdawsi gi man nañ la cee wax lu bare bare lu yaato yaatu waaw kon bu ko defee ñu ñaan ki nga xam ne mooy suñu sëriñ di seex Mbacke Gueye yàlla may ko euh, taxawaay bu dëgër ba nga xam ne mébét yi mu am ci alxuraan te musul dañ di ko am ba mu jigee daara ba tey suñu borom jàppale ko tiyel ko ay tànkam waaye téyal ko fanam téyal ko léppam ba nim ko bëgg a taxawalee mu taxawalee ko ni waaye bépp yéene bu mu ci am suñu defal ko mu kawe ci njortam lool ci barkeb Euh, alquran ci lépp loo xamante ne si rek maanaam bu ñu sàkkoo barkeem suñu borom may ñu ci barke ñu ngi sàkkoo ci barke loolu bu ko defee ñu ñu ñaanal ko ko ndax ku mat a ñaanal la ndax alquran moom moo ne wa ammaa maa yanfa'u nnaas fa yamkusu fil ard waaw li nga xam ne day jëriñ nit dafa war a sax ci kaw suuf te comme que ñoom dañ fay nekk doon ay ay keno yoo xam ne ñuy dëgëral diine lañ doon ay keno yoo xam ne ñuy jëriñ nit lañ ñu kon yell nañu ñaanal leen ñoom ñooñu ñu doon ay keno yoo xam ne dañ fiy nekk ndax luy jëriñ nit dafa war a sax fii ak ngi fi te moom bokk na ci keno yi nga xam dañuy jëriñ nit kon ñi ngi ñaan yàlla ko suñu borom saxal mu ba mu lii nga xam ne moom la commencé di gindi ay xale yu bëree bari di leen teg ci yoonu lislaam di leen xamal seen diine suñu borom euh, jàppale ko ci ba mu gën a dolle ko cee jàppale sax ndax jàppale gi am na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa